fan yi gis nga li nga xamante ne mooy xew ci réew mi ci diggante mbër ak mbër euh, des fois ñiy ànd ak mbër ñi dañuy dem ci mbër mi wax ni Moussa Balla Gaye moo la wax lii dem ci diw ne ko diw moo la wax lii yéen comportement boobu en tant mbër gis nga ko ci guy gi Balla Gaye barki démb yaa ngi dégg Lac de ak ak ak ak ki nga xamante ne mooy Eumeu seen ci loo xamante ne contrat rek moo leen boole en tant que mbër ban gis-gis nga ci am. waaw man moom damay damay préféré man lu may wax wala bala ma kaa wax ma teg ko fu leer. tam leer na ma lii dëgg la parce que tamit ah ñun bu lépp weesoo ñun ay nit lañ ay nit lañ quoi te nit boo ko doonee nekk jullit jàpp naa ne lépp looy wax rek war nga si teg baaraam quoi man sama paar laay waxee quoi waxee ma paaru kee waxuma paaru Balla Gaye waxuma paaru kenn sama paar man man lépp lu ma dem ba koy wax dama koy teg fu leer nañ loolu moom la ñuy wax dëggu nit da ngay dëggu daal waaye bu fekkee da ngay waxantu tout le temps rek man ngay wax ay erreur te xam nga kon booy wax Sénégal yëpp di la ñëpp toog naa diwa ngi wax war nga xool li nga wax bu baax nit tamit ku ñëw si yow muy àndandoo bu dee nit nga bu defee yow benn fan rek war ngaa xam dalaa yàqal si wala dalaa defar si parce que am na lum lay indil am na lum lay indil war ngaa xam ne kii nii dina ma yóbbul comprendre nga na lum lay indil rek war ngaa xam ne kii nii dina ma yóbbul bu dikkee nag nekk nit ku ko rek parce que nit nit rek da nekk nit ne du ma ànd kenn mënoo nekk nit tamit nit di la nit nga ne doo ànd ak moom. comprendre nga mais ku si ne dafa am noo war a ànd ak moom surtout mbër surtout mbër nga nekk si làmb am tur yàlla dimbal la pour man war ngaa segg say anandoo bu baax a baax a baax a baax a baax waxuma nag segg pour ne ak ah, kii daal du ma ànd ak moom wala kii du ma ànd ak moom mais ku nekk rek war na am looy ànd moom waaw parce que lu mën a am mooy dëgg mooy mujj. dëgg mooy mujj ko waaw kon nan rafetal te xam ne àdduna bi dafa jeex ba pare am na loo xam ne dara jaru ko làmb du dara. làmb benn mbiru àdduna la boo xam ne dafay jaar jàll man na du tax a ñaaw ak kenn parcelle laa dëkk amul benn mbër bu la mën a wax Moussa Balla Gaye am naa man xaar ma yàlla amul parcelle même mbëru géejawaay mbëru Pikine ku mas dajal dama la jox sa cër jox la li nga parce que bu lépp weesoo ñun ay nit lañ dañoo war a séq jàmm bu nu laajee ñu bëri ñaata nit laa bëreel ku mas dajal dama lay nuyu nga daan ma ma daan la amul problème làmb la day jeex ñaawlu naa daal waxante yu ñaaw yu quoi loolu day tax sax ñun de pour man day gën a rey sax suñu làmb parce que ku ñu dégg du ñu nawloo dina xam ne ñii duñ ay nit te comme chaque jour ñu dëkkal ñu foofu nga la waay buñ fa jëngoo dëkk quoi vraiment man daal loolu laa gis quoi vraiment.